Mbakke ab tàmbali waaye amutum yemukaay ah, di ñaan yàlla sunu borom mi nga xam ne dara tawu ko lii fi dajale woon nga xay ne moo nu fi taxan a jóg nu nekkan di ko def yàlla na ko yàlla sunu borom nangu te bu ko yàlla sunu borom nangoo mu defal nu koy xeewal dencal nu ko fa yàq yeggut ban ban ban ban yegg fa. sant nañ leen bu baax gërëm leen bu baax soxna su Mbàkke sa njaboot a ngi nii ñëw. teew ci sa kanam di la siyaare si ngir ànd bi nga ànd ñoom soxna si gone yii dey ñoo ñëw tey jii indi lii di la di la ko siyaaree siyaar bi nag maanaam liñ joxe amul solo waaye seen xol yii moo am solo te ñoom ñii dey ñoom ñëpp seera nañ ne ku toog dëkk saam seera nga ne seen xol yi jox nañ ko soxna Atou Mbacké loolu ñu ngi la koy seereel te loolu yow xam nga ci dara kon nag ñi ngi lay ñi ngi lay ñi ngi lay xamal ne dara ñorunu lu may liggéey sëñ ci sa ginnaaw ñi ngi lay xamal ne dara ñorunu lu may liggéey sëñ ci sa ginnaaw Mbàkke yàlla na nga fi yàgg lool yàlla na nga gudd fan lool yàlla nanga nga wér lool ci dara ji Seexul Xadiim te wér liggéey bii ngay liggéey ànd koog sa bokk yi nun dey amuñu dara mënuñu dara sañunu dara waaye nag jox nañ la suñ bopp jox nañ suñu xol amul lenn loo xam ne ding ko woote fii ci kër gi no no am ca nu deltu ca ginnaaw lépp loo xam ne daal yaa nga ca noo nga ca nonga ngi ci sa ginnaaw fas yéene di la jàppale fas yéene ànd ak yow duñ deltu ginnaaw duñ daay duñ dégg dara la nga nu waxoon ca njëlbeen ga ca loola rek la nekk tax gumba lu bi ñuy sordaare bii loolu nga waxoon da nga noon na ngeen ko sort waaye na ngeen tëx na ngeen gumba na ngeen lu lépp loo xam ne seen yokk seen yoon nekku ca bu leen ca nekk loolee di soxna si ci la ci la nekk ñi ngi lay seeral ne mbooloo mii dey ñi ngi ñaan yàlla ci dara ji Seexul Xadim ci sa baax ci sa kattan nga ñaanal leen ba ay pulli pulli feeñ ci ñoom yoo xam ne lépp lu ñu bëgg a liggéeyal ci Sëñ Tuubaa rek dinañ ko man gone yii day soxna si war nañ leen ñaanal bu baax a baax a baax a baax am nañ yéene lool ci sa jëmm ji am nañ yéene lool ci sa jëmm ji te jëmm ji ñoo am yéene yaa leen ko wan ndax mbake ñii nga dajale bu fekkonte ne yor nga jeneen jikko doo leen dajale ndax ñii ci sama ginnaaw nii kër Sëriñ Tuubaa yi kër gune yaa ngi ci loolu nag képp koo xam ne doon nga kilifa dajale ko ko ci sa njaboot ñu nekk ci sa ron su Mbàkke sant nañ la bu baax gërëm la bu baax ñii ci sama ginnaaw kër sëriñ boo kar xar gis ci Sëriñ Tuubaa gi sa njaboot a ngi fii toog nga boole leen dajale yiir leen yërëm leen ànd ak ñoom xamme woo ki yaakaar sëñ Abdou Latif Mbàkke ak ki yaakaar kaneen ñëpp nga bokk yamale loolu moo moo moo waral mbooloo mi Mbàkke ñi ngi lay sant ci loolu di la ci gërëm te leen ñaanal yàlla loolu yàgg ndax nun ñii dara ñorun lu may te nekk se ginnaaw di liggéey sëñ Tuubaa am na mbokkum taal bi nag moo fi yóbbante woon yóbbante boo xam ne danaa la ko wax nee na nee na liggéey bii nga liggéey tey mbokkum taal bi mu baax la moo am yéene ci kër gi nee na liggéey bii nga liggéey te fii ci kër sëñ Tuubaa gii ci kër sëñ Tuubaa gii nga xam ne sëñ sëñ Abdou Latif ku tuddoon kër sëñ Tuubaa nee na liggéey boobu nga fasaat ni sëñ Cheikh Mbacké wér gi yaram man ba ma ko waxee dama ko ne looloo ko soxnaa nga soxnaa nga sànq ca ma nga ca ci la nekk waaye nag yóbbante àq la ginnaaw kilifa la te daf ma ko yóbbante mën naa ko tudd mooy Abdou Baye Abdou Gadiaga daf ma ne na nga wax soxna si liggéey bu rëy bii mu liggéey fii ci kër gi tey jii ni ci fasaale sëñ Cheikh Mbacké wér gi yaram ak mucc gu gu mat sëkk kon nag Mbàkke na ko ci fasaale ndax boo ko ci fasa fasee mu am gone yii nag say sa alal la say sa alal la ñii moom la xam ne sa alal lañ dara jombuleen leen ndax ay ay boromi kawar yu ñuul lañ kon nag li ñuy ñaan nga ñaanal leen faw nga ñaanal nu am lu feen ci nun comme ci mën a doon ci gone yi rek na am ñu feeñ ci ñoom loo xam ne lépp lu mbooloo mi soxlaat rek kooku ñooñu jóg def ko ndax kat loolu mënut a ñàkk ci mbooloo ñoo ngi nii dina ko doon bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa waaye am na lu nu tële lu bëree bëree bëree bëri kon nag liggéey bii nga liggéey fasal nu ci ñun ñii toog ñu gone yii toog man waxuma sama bopp parce que man sama wàllu wéy na ndax mag laa waaye gone yii toog nga xam ne ay gone xonk curu lañ toog toll ci seen diggu doole ak gone jigéen yi toll ci seen diggu doole ñaanal leen yàlla yàlla am lu feeñ ci seen biir loo xam ne lu ñu yéene te def ci yoonu Sëñ Tuubaa yi dañ ko man nañ ko bëggee ndax yoonu murit ñett la da ngay nangoo liggéey nangoo ñàkk nangoo joxe ak joxe addiya leer na ma ne moom joxe moom nangu liggéey moom nangu nañ ko bu wér a wér toogaat fii déwén am ñu feeñ ci ñoom ñoo xam ne lu ñu yéene liggéey suñ ci waat dañ ko man te boo ko ñaanalee yàlla mbàkke dana nu dal yow nag sant nañ la bu baax gërëm nañ la bu baax amulul lenn lu ñuy xebat ci yow lu may fas yéene ne ñàpp topp ci sa ginnaw gii rek loo digle nu def ko loo tere doonu jës yéen lii daal loo loo ngi lay xamal ne loolu ci fa fas le nekk at yi ji nag bëriwut waaye li muy néew néew néew li ko lal taay moo ko tax am solo ndax xol yu nangu moko ko moo ko lay taay nangul nan la te duñ la duñ la gàntal mukk kenn du war ci mbooloo mi ci ci gone yi amul kenn ku ci fas yéene ñoo topp ci sa ginnaaw ñaaj loo digle dinañ ko def loo tere doo doo leen ci seen kon nag ñaanal leen mbàkke boobu mbàkke boobu ca kanam rek bul tiit dara arke Sëriñ Tuubaa Mbàkke ndax lii ngay def nii ku koy def da nga fi yàgg te da ndax gone yii kenn ku ci nekk war ngaa nëgëni war naa fekk nga nekk ci leneen lu ba ko teg lii boo leen dajalee fii tarbiyee leen ñu nekk ci lu baax mbàkke gàcce ngalaama ma waaye daa mel ne ren jii moom dañ doon fàttalikuwaat sëriñ Abdou Latif sunu jàmbaar ja ak soxna bu sa jaxate suñu waajur wa di kenn ci ñun ñu doon ko fàttalikuwaat biñ joxe kaamilu alxuraan bi ak xasid ak muxaddimaatul xidma boole woon ci photo bi mbokk yi tàllal leen ko kon bismillahi maay saddi way ndem gaa yi diine ñoo ne ma ma way waa ahlu saam ñëpp a ngi jooy soxna si ñu ñàkk daaw waa ahlu saam ñëpp a ngi jooy soxna si ñu ñàkk daaw demal fa eh. eh. eh, yoonu murit ñëpp ngi jooy ne ne mi ngi sant yàlla bu baax a baax tey jéggalu nee na xéewal yi nga xam ne tuur na ko fi waaye nag lépp nee ba doomu aadama moo baaxoo noonu rek waaye sant na yàlla bu baax a baax nee na mi ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp tàmbalee ci alxuraan ji nga xam ne wàccee nañ ko fi ak xaside ak salaatu ala nabi ak astaxfirlaa yi ñu fi def lépp soxna jaar du buso lañ yéene yoole bi te mi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaqa liggéey bii mu sumb yàlla dëgëral ko ba mu yeggale ko ci kattanam di ñaanal sëñ Cheikh Abdou Latif Mbacke mi nga xam sëñ Cheikh mbakke mi nga xam ne mooy seenum sëñ Abdou Latif fii tey mi ngi ñaan sëriñ bu sunu borom guddal fanam te wér ay cëram nee na mi ngi sant mbokk yi fi teew yëpp di tàmbalee ci sëriñ Cheikh Mbacke ak njarabu njabootu Cheikh Abdou Latif Mbacke gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di sant it Serigne Modou Mbacke mi nga xam ne moom la ko yàlla booleel mu fay liggéeyal yàlla sunu borom. bu jàpp liggéey bi jàppandee nii ba mu man koo liggéey nii mu ko bëggee ak jàppandalam moo tax. mi ngi sa sant itam ñaari waa juróom yi nga xam ne ñoo ko meññ muy Cheikh Cheikh Abdou Latif Mbacke ak Soxna Boussa Jaxate soxna Bura soxna Boussa nuru na ku gàttu fan waaye gàttutu fan ndax képp koo xam ne sëñ Abdou Latif jaboo na jaboote na la rek taxaw nga fii jagleel kook cantam te bu defutoon la ko war jaboote wuñ ñoom duñ ko mën a waaye dañuy suñ bopp. nee na bëkk dem bi mu wàcce fii kaamil yi sëñ Saali yi sëñ Jiili Mbàkke daf ko woo di bëgël ak cantam ci wàcce googu muy wàcce kakaaleem ndax nee na bu fekkante ne jaboote liñ nga ne am na loo xëy ne dina ko bëgg waaye du ko man nee na loolee nag mi ngi koy sant yàlla te xam ne lii lépp ab liggéeyama. fan wu gudd mooy jëf fi loo xam ne du fay ba addunay tukki. jëf na ko ci dongay daara jëf ko ci mag ñi jëf ko ci ndaw ñi. ne mi ngi ñaan nag li desan ci mébétam yàlla guddal fanam yéeg may ko wér-gu-yaram ba mu mën koy yeggali fa mu ko fa mu ko bëgg a yóbbu. ba def lu kawe njortu soxna bu sa jàllee ñoo ngi sant daayira ak nga xam ne ñoo jiitu daayira bu loolu jàllee nag nee na ngi sant daayira bu mag bi nga xam ne al Mumtazina la dudd sëñ di daayira Sëñ Abdou Latif Mbàkke nekkan fii ci biir kër gi mi ngi leen di sant di leen gërëm di sant it fédération soxna jaar yi yëpp yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo koy jàppale ci liggéey bii yi nga xam ne dañoo xooloon bi diis na ñu am nee na bu bu loolu jàllee nag mi ngi sant daayira tuut tànk yi nga xëy ne ñoo ñëw jàppale ko ànd ak moom bi nga xamee ne liggéey bi dem na ba ba ba jéggi dayoo ñu ñëw toog ci ginnaawam fas yéene ko taxaw ci ginnaawam fas yéene ko jàppale ci liggéey bi soxna jaare bii nga xëy ne moom la fas yéene di liggéeyal di leen ñaanal ci kattanul yàlla baax yu naan dara ji sëñ Tuubaa xasida yi ñu fi jàng ak alxuraan ji yàlla def leen mag te def leen mag ñu ñoo ñoo xam ne ñu mucc ayib la ñuy doon nee na yoon wii ngeen dëgmal de yoonu jafe la ci yoonu ndaw nee na moo tax pakk yi dana bari wax ji dana bari waaye nan të temm rek saytaane nee mbooloo mu ma fen sa jóg rek di liggéeyal si yàlla saytaane daa nekk ci seen biir rawatina nag ay gone yoo xam ne xeli gone dongoon ñoo nekk ci moo nekk ci ñoom nee na lii ngeen def nag jagleeg sëñ bi la waaye du seenu xalaat du seenu mën a jëf. nee na daayira bii ngeen yor biñ koy sosee léegi yàggut waaye fépp lu ñuy liggéey ci kër sëñ Abdou Latif Mbacké lépp lu ñuy def ci kër sëñ Abdou Latif Mbacké dañ leen ci tudd. te buñ leen ci tuddee ba mu jàll itam dañ dañ ci ngeen ci am ndam rek ja ndam rek ngeen ci am saa buñ buñ leen woo ci liggéey ba liggéey ba jàll ndam rek lañ koy jottali ndam lañ koy yóbbal di yóbbanti ci yéen. nee na kon nag nan nee na noonu fas yéene góorgóorlu bu baax fas yéene jàppante fas yéene bëggante fas yéene yërëmante. ñeen ñi nekk ci Touba gii ak ñi nekk ci bitti dëkk bi képp ku ci gis sa morom rek na nga mel ni ah, sa sa sa sa sa sa xarit nga gis sa sa soppe nga gis sa am di jàmm nga gis def ko si na sa ni sa bopp. te liñ leen di njëkk sant nee na seen waajur yi ngeen bàyyi ci kër ga ngeen gën koo fonk. nee na lépp lu ngeen bëgg-bëgg a dem te amu leen seen i ngërë ngërëmul waajur amu leen seen i ndigal du ngeen mën a dem. ngërëmul woo ñaari waajur ci la ngërëmul sëñ bi nekk ci biir. te ngërëmul sëñ bi nag boo ko xasee am moom ñàkkatoo dara. nee kon mi ngi leen di digal lam leen daan digal rek. tax gumbalu te moo moytu saytaane ak pexem jigéen góor ñi ku bëgg soxna na ko wuti jigéen ñi képp ku gis koo xam ne mën na laa yor borom kër nga toog fa to liggéeyal yàlla sunu borom nee na bu ngeen wéetee ak bu ngeen wéetli ko na ngeen xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa ak jub dong nga ko mën a def nee bu kenn wéet ba mën a ba yaakaar ne daal mën ngaa def safaan ba ba mu ëmp nit ñi. lépp loo mooy def ci safaan wala nga mooy ko wala nga jàdd ko nee na day mel ni teewe na ko rek day mel ni day ñëw wax ko ko dara du ko ci ump. nee na lim ne lim li ma doon ñaan nag muy xéewal yi ma doon ñaan nee na sunu borom am na ko te jeexalu dara. al nee na li alxuraan jii ngi nu doon jàng fii lépp ngi ci biir alxuraan. nee na kon mi ngi koy ñaan ci barke alxuraan lépp lu gën ci yéen yi seen sunu borom yàlla na leen ko defal defal leen gudd fan gu ànd ko wér te ànd ki xéewal nee na lépp gépp xéewal nag goo xam ne nar ngeen ko am te naru leen ci liggéeyal Sëñ Tuubaa loolee yàlla bu ngeen ko am nee na mi ngi leen sant bu baax a baax a baax te nee na xam ne bëgg gu loolo moom xam naa ci ne bëgg gu ngeen bëgg soxna si gim leen bëgg ko baraw bëggut ku kenn ku dem ci ñoom di leen wax di di di wax di wax dara di wax dara bu sañeen jub rek lay dégg ci yéen. kon nee na kon nag nañ fas yéene laxasaayu laxasaay gi boppam la ci jiital nañ fas yéene jaajuwaat. takku buum si suñu baat jébbal ko sëñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne mooy suñu lépp. ku roy ci moom doo jëm ci dara. ndax solowut ci këram dara. du dara lum soxla ci këram kay sëñ Tuba dong ko ñox sa fu nekk liggéey sëñ Tuba lu ne ma ngi ko fay dégg tax gumbalu rek tontu lu tontu lu kenn ba li boo waxee mu ne li muy wax lépp maa ngi koy dégg lépp li muy wut mooy sëriñ Tuba kon nag nun ñii dara waruñoo ñor lu muy sëriñ Bamba rek waruñoo sonn waruñoo tay waruñoo daj. danaa dama jege ne magal gi waaye mat nañu maam. bu sëkkee ci kanam sëñ bi da ngay gis ni banque tànkam banque ba ba banque ba banque ay bëtam banque léppam. kon nag ma war na roy ci moom ak taalibe bu baax a baax. te fas yéene liggéey sëriñ Tuubaa bañ a génn jëm fenn buñ ko génn jëm fenn. baax di ñaan suñu borom yóbbu jàmm delloo si waat ñu jàmm ak mi ngi leen di sant bu baax mi ngi ñaan yàlla borom gis sunu borom yóbbu ñu ci poroxaan ci jàmm delloo suñu ci jàmm. bépp màggal bu ma sa def rek bii yàlla na ko kawe njort. lépp nee na lépp luñ fi ñaan daal yàlla na ci yàlla saafara wéradi yi gundal fan yi dafa xéewal gu yaatu rek jërëjëf sant nañ bu baax Mbàkke yàlla na nga fi yàgg Mbàkke yàlla na nga fi yàgg ndigal na dégg ko top ko rek dégg ndigal boole ko topp lii ngeen fi dégg daal fexe leen ba nan nan ko defuk laxasaay rek kenn koo xam ne ci sama bopp laay tàmbalee képp koo xam ne xawan ya yatambal rek xawan ngaa ya tambal fedd li daal waat ak sa sa laxasaay tan fas yéene àndaat rek fas yéene àndaat rek barke sëñ Tuubaa ànd ba àjjana rek waaw na ñëpp fedd li seen i laxasaay ko fii ne fas ya waaw mbooloo luñ bari bari nañ def tey bi yëkk ne doo teggatandoo buñ jàpp ne ñaar ko war